l'agence nationale de la statistique et de la démographie kuréel gu nga xam te daal dafay saytu ak nattale ak xayma jëm ci wàllum population génn nañ seen benn rapport ci 2020 nañu nag bu ñu ko nattalee ak bu ñu ko xaymaa daal ak 2019 moom euh, Sénégal population bi yokku na à 3 pour cent ba àgg ci lu toll ci 16 millions 700 mille 705 mille 608 habitants nañu nag góor jigéen ñi toll nañ ci 8 millions 391 mille 358 ay jigéen lañu. Euh, góor góoñin toll ci huit million trois cent quatorze mille deux cent cinquante kon jigéen ñi ëppee góor ñi tuuti ndax jigéen ñi ñu ngi leen xayma ci cinquante virgule deux pour cent góor ñi ñu xayma leen ci quarante neuf virgule huit pour cent maanaam téeméer boo jël ci sénégalais cinquante yi ak lu topp ay jigéen lañu téeméer boo jël ci sénégalais quarante neuf yi ak weccet ay góor lañu. léegi nag Sénégal ah, ah, étude boobee li mu joxe mooy Sénégal daal ñi nga xam ni ay jeunes lañ ñoom fi ëpp. li nga xam te ni daal ay jeunes lañu seen ak toll ci fukk ak juróom-ñeent rek jëm kaw tuuti ñoom ñoo ëpp ci population sénégalaise lu toll ci cinquante 54 virgule 82 pour cent population sénégalaise ci rural bi lañ dëkk am daal ci gox gox goxaan yeeg dëkku àll yi lañ dëkk. Euh, Dakar képp moom lu tollu ci 23 pour cent de la population sénégalaise mi ngi Dakar maanaam seen Sénégal gépp bu ñu doon téeméer ñaar fukk ak ñett yëpp ñu ngi ci région de Dakar. 55 pour cent de la population aussi réside dans les grandes cartes de la de la dans les quatre grandes régions administratives maanaam Sénégal bu ñu doon téeméer juróom fukki ak juróom ñëpp eh, ñu ngi dëkk ci dëkk yu mag yi ñuy bëgg a lim muy Dakar Thiès Diourbel ak Kaolack. mu wuteeg lool ñi nga xam te yeneen dëkk yu nekk ci yeneen yeneen gox yi nga xam ne daal dafa ne ci ay nit bariwuñ ndax ci mel ni Matam 4 pour cent de la population sénégalaise rek ñoo fa nekk toll ni Kaffrine 4 cent moom Ziguinchor 4 pour cent Sédhiou 3 pour cent Kédougou 1 pour cent